تركت ما كان لي بغير مبتغيا ما علم لي يا بحاجتي لنا بكي نيجي زيارة بباخ di nuyu ñëpp ni nga ko baaxoo daa defe rek mooy fàttali ñu ko daa waxee rek ñu góorgóorlu bu baax ci waxtu wu ne ñu gën a fonk suñu diine waxtu wu gën a fonk sunu taalibe fonk diine gi moom mooy fonk digal bàyyi tere fonk taalibe gi itam mooy waajal jëf ji di yéene bu baax te yàlla rekk tax di jëf lu baax di wax lu baax di jëf lu baax te yàlla rek tax ci sax ca dàkk ñu gën a góorgóorlu bu baax mañ cee rek moo di gën a delloo si xel yi bu baax ci tawféex juri yi nga xam ne am nañu ko mooy boole gi suñu boroom boole sëriñ bi mu gën a delloo si xel yi bu baax xel xëy na xel yi jógu ci sax waaye tawféex jure ji na am ak def gi sunu borom def ci nuy xol nu bëgg sëriñ bi nu bëgg sëriñ bi nun ñëpp góor ak jigéen maa nga ndaw nun ñëpp ci yem nun ñëpp ko bëgg ci biir loolu kon war nañu sàmmanteeg wormaam waxtu wu nekk waxtu wu nekk war nañu sàmmanteeg wormaam ñun ñëpp nag amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw kenn du ko ne fa nga ca toll boo te boo nattee sa bëgg ci sëriñ bi dara waru caa dolli ku lu dul orma sa digganteeg moom orma sa digganteeg moom nga rus jëf lenn lu safaan nga rus ci sëriñ bi xormaal ko xormaal barab bii mu nekk muy dëkk bi muy Tuubaa xorma ji ñun ñëpp la war amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw kenn ku ne fa ca toll mën ngaa jëfe foofa dëkk bi kenn ku ne ci ñun war naa am kers ci sëriñ bi war naa ruus sëriñ bi ci nekk fii di fi nekk di fi nekk sabaan ku fi nekk war ngaa xam li nga am tawféex ji nga am sëriñ bi ba bokk ci ñooñam amaat tawféex dëkk ak moom fii war ngaa xam nag kon li nga am sa digg ak sëriñ bi xam ne ormal ko war na la waaye ormal dëkk bi bi fi ci barab bi mu nekk war na la la ca dam ta tàmbale ca gone gu ndaw ga lu mu doon doon gone gone lu mu doon lu doon doon gone bu ñàkk lu mu xam lu jeexital ci moom ci baaxu sëriñ bi loola mu tàmbale caa rus sëriñ bi tàmbale caa am kers di góorgóorlu bu baax lépp lu mu xam ne ab safaan la mu di ko wattandiku ko di ko wattandikoo def ci dëkk bi loolu ca tàmbale ca gone gu ndaw ga jëm ci ki nga xam ne eh, dëgg la gone yi ñooy yaakaari ëllëg kon lu ñu doon doon di gone war nañoo bàyyi xel ci xam ne ñooy ëllëg yi te xam ne lu baax rek lañu bëgg ci ñoom ñu xam ne am nañ xéewal bu rëy juddu fii fi sëriñ bi kon war nañoo teel def seen xel ci ormal ko ormal barab bi ci bañ fattaliku fi di fi jëf benn safaan loolu muy gone gi muy ndaw li rawatina ndaw li ñi nga xam ne ñooy ndaw yi loolu moo war a nekk ci ñoom worma ormal sëriñ bi ormal dëkk bi ndaw ñi rawatina ñoom ñoo yaakaar yi war nañoo xam la seen wartif xam ne buñ dee wax sàmm war may dëkk bi sàmm wor may sëriñ bi sàmm war may dëkk bi dafa mel ne kon ñoo ci jiitu muy ndaw yi ñoom bu ñu xamoon dañuy jàpp ne dañuy xam ne ñu war a doon ñiy wattu dëkk bi ñi koy wattul sëriñ bi gannaaw bu ñu góor góorgóorlu seen bopp ba noppi ci bëgg sëriñ bi gi ñu war a bëgg ak pësté ba ñu war a am ci sëriñ bi ak war ma war ma war ma jëleen ci war ndaw ñi dañoo war a jàpp ñoom dañoo war a jàpp ne ñooy ñooy ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy sawatu dëkk bi ñoo koy wattul sëriñ bi gannaaw bu ñu góorgóorlu ci seen bopp ba noppi ci kaw jéem a góorgóorlu tegu ci yoonu jub njub mooy buntu lépp lu baax njub mooy jiitu lépp bu jub amee lépp lu baax yomb xam ngi yomb jëfe gi yomb bu jub amul lépp tëju kon ndaw ñi war nañoo góorgóorlu bu baax xam seen bopp góorgóorlu bu baax xam ne li ñu bëgg ci seen bopp njub rekk leen koy may ca dolli ko mooy gën a góorgóorlu bu baax sàmmoonte seen diine gën a góorgóorlu bu baax sàmmoonte seen taalube li ñu bëgg seen bopp foofu la gën a yombe lu dul loolu dolli fitna rekk la loolu mooy ndaw ñi li nga xam ne ñoo toll ñoo ca toll ñoom dañoo war a jàpp ne ñoo war a wattu dëkk bi ñoo war a ñoo war a ñoo wattul dëkk bi sëñ bi bu ñu xamoon loolu te def ko seen yitte day leen amal njariñ lool seen dundu àdduna gii waxuma la gu àllaaxira gañ jëm nañu góorgóorlu lu baax dellu seeni xel te xam ne dugg dëgg ma àdduna moom fitna jure rekk la amul benn njariñ kon góorgóorlu ci xam li nu am tawfeex juri ju nu am muy sëriñ bi wala di ko dëkkaat ak moom loolu war nañ koo xam bu baax te gën ci góorgóorlu ja xam ne loolu moo gën a gaaw ci may nu li nu bëgg waxuma la jëf ji nga xam ne suñ diggante ak suñu borom lañ ko séqal yàlla te yàlla yomba jëflante lool boo yéenee te defoo dara sax mu fay mu fay la dencal la boo jëfee benn mu defal la ko fukk tàmbalee ko di ko wéy mën na ko yokk di wéy waxuma laa nag defaru biir ga nga xam ne moo moom lay àndal defaru biir ga mooy àndal day day indi day day jeex day day day jeexital barke barke boo xam ne moo lay defaral sa sa mbir yépp lu ci dolli ku muy mag ñi kilifa yi xam naa ne ñu ngi ci sax waaye ñu gën a góorgóorlu ci njaboot gi ñu gën a góorgóorlu ci njaboot gi xëy na jamono di sax jamono tax na yombul waaye na góor góorgóorlu suñu kem kàttan lu ci ci ci yar ci yar leen ci sunuy sunuy su lépp suñuy kem kàttan sunuy su su su sunuy làmmiñ sunuy jëf suñu digganteeg ñoom suñu xamal rawatina jàngal taxaw leen bu baax njàng mi njàng moo nu gën a mën a noppal ci njaboot gi ñu góorgóorlu ñu ngi ci sax waaye ñu góorgóorlu bu baax gën leen taxaw ci jàmm njàng mi buñ tolloo ci alxuraan ñu def ci yitte ju mat sëkk nii ko nii ko baaxee defee buñ bu bu buñ jógee ci loolu ñu góorgóorlu bu baax jàng xam-xam kon loolu moom mooy suñu njariñ li nu bëgg loolu rekk noo ko mën a may lu dul loolu fitna rek lay doon ma dellu si dëkk bi dellu si dëkk bi li nu ci waat ñun yépp mooy xormaal sëriñ bi xormaal barab bi ci tolluwaay jamono danaa di xalaat ne ñi dëkk ci dëkk bi bu ñu doyloo sëriñ bi nekk seen liggéey ñiy bay di bay ni sàmm di sàmm ni jaay di jaay te doyloo sëriñ bi loolu da leen gàttandu ci lépp lu ñu bëgg ci na mu gën a noppalee na mu gën a barkeele dana di wax dama di xalaat na dëkk bi ñaar rek ñaar rek ñaar rek ko séq ñi fi dëkk nañ doyloo sëriñ bi te fonk seenu liggéey yàlla dafa leen ci barke ñi fi ñëw dëkk bi tax leen a jóg bu leen dara tax a jóg na leen sëriñ bi tax a jóg ku fi ñëw na ko sëriñ bi tax a jóg saare ñaan mu amal la njëriñ lool te du du ànd ak lu benn lor nga dellu ci sa liggéey kon ñaar ñooñu rekk ko séq nu góorlu bu baax ci xam li nu am mooy dëkk bi ak boroom dëkk bi nekk bi fi nekk nan góorgóorlu bu baax sàmm dëkk bi na mu gën a selle ndax sell na ba noppi ndax ki fi nekk waaye nag nu nu sellal ko ci nuy xel sellal ko ci nuy xol sell selluk sa borom bu ñu dee loolu moo tax sëriñ bi mën nanoo góorgóorlu bu baax si sellalal ko dëkk bi dëkkam bi ndax sell rek la ca bëggoon bi fi ñëw réer na ab diir ngir suut barab boo xam ne dafay barab bu jaamu yàlla rek la loolu wut barab bu mën a mën a liggéeyal yont bi yàlla defal ko ko loolu mu fagguwaale ci njaboot gi yépp te lam ca faggu lam ca leen fagul jaboo na ci boroomam damay wax ne sëriñ bi faggu lu mat a faggu faggul nanu ko lu mat a ñaan ñaan na ko boroomam te may na ko kon nu góorgóorlu bu baax ci xam li nu am te sàmm ko bu baax war maa dëkk bi rek suñu kem kàttan mooy warmal sëriñ bi loolu ñépp ko bokk gone am na ci wàll jigéen am na ci wàll góor am ci wàll ndaw am ci wàll mag am ci wàll ñun ñëpp ñun ñëpp bëgg nañ sëriñ bi la ca mooy kon nan xam nan gën a xam lanu ci war suñu diggante digganteek moom dara jiitugu ci nag warmal ko ci rus rus ko am kersa ci nekk fi nekk fi nekk fi tabaan nu góorgóorlu bu baax sunu kem kàttan te delloo si sunu xel ak suñu yittee ñu delloosi ko nag ci njaboot gi góorgóorlu si njaboot gi bu baax xam naa ne sax ñu ngi ci kem kàttan waaye ñu ko gën cee góorgóorlu bu baax rek ci yar leen jàngal leen def ci ñoom yittee ñoom bi ñu xam liñ leen bëggal lu gën a tuuti tuuti xel ma ko yàlla dénk mën na caa xamee lu baax lañ ko bëggal mu góor góorlu ca ndaw li nga xam ne dafa tollu ci. dugg àdduna kooku mu xam ne wërtaxante wa daal loolu góorgóorlu tegu ci yoonu jub bu tegoo ci yoonu jub rek li mu bëgg ci lu baax lépp li ko war dana ko yomb li mu bëgg ci lu baax lépp dana ko yomb mag yi gën noonu rek yokk yi tëj bu baax ci jaboot gi di doole sant nag bu baax xam nan doxin wi xam na ne itam seen kem kàttan yéen a nga ca taxawaayu diini ji fa tabaarakallaahu alhamdulilahi rabbil alamin taxawaay yépp itam gis nañ ko noo ngi sant yàlla deen ci sant bu baax deen gërëm bu baax di doon la ñaan rek sun boom gën noo gàttu nag tawfeex Sëriñ Tuubaa ba ñun ñëpp nu gën a soññ suñu bopp ci nekk ci li sëriñ li sëriñ bëgg ci noonu noo ngi sant ñëpp bokk yëpp bokki taalibe bi yëpp ñoo leen sant leen gënam di xam di wax ne kàddu yi jumluñ ci dara lu dul lu nu bëgg suñu bopp rek dafa mel ni dañ leen ci jiital lu nu bëgg suñu bopp rek moom dañ leen bëggal la leen bëggal loolu rek moo war a wax ji kon nanu góor lu baax gën a sàmmante suñu diine gën a gën a fonk suñu taalibe gën a yokk suñu itte la cay suñu kem kàttan jërë ngeen jëf ñoo ngi sant ñëpp gannaaw bu leen siyaaree sunu xol eh, sedd na ci taxawaay yi sunu xel dal na rafet nañ jort bu baax a baax itam jërë ngeen jëf. sàlle sa bi ñaan